ci benn période rek nga njëkk a ñàkk sa way bu euh, jigéen euh, ajab Nafissatou Sow euh, teg ci nga ñàkkaat Babacar Touré loolu lu metti la maanaam waaw waaye ni ma ko waxee comme ay jullit lañu dañuy dañuy nangu mm. di ñaan yàlla xaare la jëna waaw soxna fi moom xam nga way jur dafay sori mm-hmm. waaye àddina aussi dañuy muñ sant ndax am nañu àddina te fekkuñ fi seen nekk kon lépp it lu mu métti métti it da ngay da ngay sant di sant ak di di di leen ñaanal mhm. loolu it leenu dénk njabootu Babacar Touré mhm. àddina moom moom nag xar dañ koy dañuy la ñuy dunde mhm. su bu ne ay dañuy jéem a jéem a muñ di sant yàlla di sant yàlla voilà jigéenu jàmbaar la woon euh, sage-femme la woon euh, ñu ngi may xamal sax ni caractère bi ci yow ci moom ko jël waaw soxna si day <laughs> mon na mon na taxawaay ko mon taxaway la <laughs> yàlla defoon nag mu dund quatre vingt ans mhm. am ñetti fukki ak mhm. euh doonoon une sage-femme mhm. voilà donc servir aussi euh, publiquement nekkoon sage-femme à Foundiougne def naa moo njëkkoon nekk seen sage-femme boobu yàgg na ca Foundiougne voilà ca Foundiougne boobu man mi gane si adina service public ya genam fi aussi. mais dégg na dafa dafa dafa dafa rigoureuse woon. wa wa voilà waaw ñu day ba ñu nekk xale nag moom aussi si daan teg ci yoon. teg ci yoon waaw daan teg ci yoon way non bëgg nañu aussi lu bare bare bare. Eh. lool it misaal la mën bëgg sa doom eh. lool. waye eh. nak aussi oh, diko tek ci yoon. am na sax ñu naan lignée de femme forte ngeen parce que mom rigueur boobu.